dal leen ak jàmm ci lii ni kay xëy génn tey ci réew mi FM yéen kat bi di réew mi quotidien ñëwaat ci kadduy maître Abdoulaye Wade yemu yëkkati ca diwaan bu Paris gamu nekk yéen kat bi ne maître Abdoulaye Wade ma ngay woo mboolem ñi nekk ci ku jóge ñëpp ñu taxaw jaamarloo président Macky Sall ndax maître Abdoulaye Wade ne président Macky Sall mbirum dictateur dëgg lay def ci réew bu Sénégal Assane Samb ci ni cabinet maître Abdoulaye Wade kay ay kaddoom ak kadduy waa Manko Wattu Sénégal lu benn la ñu ndax fi ñu tolli moom maître Abdoulaye Wade ne dañoo war a taxaw nag ndax li ñu ko may dafa ëpp maître Abdoulaye Wade ne président Macky Sall mi li muy def man mi ma wutu ci gouvernement bi defuma ko Abdou Diouf mi ma wutu defu ko Senghor mi Abdou Diouf wutu defu ko fii def-def bi muy def ci réew mi moom dong moo ko sañ maître Abdoulaye Wade ci ni kat yi diwal fu quotidien ne suñu république bi ci boppam dañu ko jox koo xam ne kii daanaka xamul luy république xamul luy nguur moo tax askanu Sénégal gi yëpp kenn amatul benn yaakaar ci ëllëgëm ndax bu amee lu naqadi boo bëggee doox ñu xañ la ko wàllu démocratie di gën a wéy di gën a dellu gannaaw maître Abdoulaye Wade ci nikaay bi di las lii lépp nag dara mënu ko fàcca lu rek taxaw jaamarloo ko président Macky Sall ndax président Macky Sall ci boppam du ay wax moo ko fii jëlee maître Abdoulaye Wade kay ma ngay woo mboolem ñi bokk ci parti démocratique sénégalais ak ñi bokk ci opposition bi yëpp ñu taxaw xeex ak président Macky Sall luñ ca góobee lu i cabinet moom maître Abdoulaye Wade mi ngi yëkkatee yile kàddu ci kanam waa diplomate sénégalais ca douane bu France maître Abdoulaye Wade moom bu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci réew mi gouvernement bu président Macky Sall Fatou Tambadou moom kàddu yi mu yëkkati si ministre Diène Farba la ko jëmale ci ay bés yu ñu génn ci assemblée nationale yi ni kat di réew mi quotidien ne Fatou Tambadou di ministre bi ñu dénkoon lépp lu jëm ci xeex wàllu mbënd mi ci banlieue bu Ndakaaru gannaaw kàddu yi mu yëkkati woon tax na ba président Macky Sall tekki ndombal tànkam jël mu ko dénkoon jox ko Pape Gorgui Ndong Moustapha Diakhaté président groupe parlementaire mi nekkoon ganu émission glantoral ci réew mi fem ne warmalut benn yoon député yi warmalut njiitu réew mi warmalut institution yi ba noppi war warmalut ministre yi nga xam ne moom la bokk ak ci gouvernement bi Moustapha Diakhaté ne président Macky Sall ak jéego bi ni mel mooy wane ne kaddu yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati saa su ne naan patrie bi ci boppam moo ko gënal partem bi ma ngay wéy di ko gën a firndeel moom président Macky Sall yi ni kat yi di Sud Quotidien leneen lu mu def mooy jël secrétaire général bu parti socialiste tabbu ko mu jiite au conseil des collectivités territoriales Sénégal au conseil boobule yéen i kaay bi ne président Macky tey la koy samp ca centre international ba ñu duppee Abdou Diouf nekkee ca diwaan bu Diamniadio gannaaw juróom-ñaar fukki membre yi mu tabbal boppam fekk ci juróom-ñett fukk yi nga xam ni askan wi ñoo leen tabb mu nekk téeméer ak juróom fukk téeméer ak juróom fukki membre yooyu lay yéen i cabinet tey ji lañ leen di samp ngir ñu door seen liggéey ci au conseil bu collectivité territoriale Abdou Diouf ci téere bi mu bindoon ma nga fay wi di kañ Ousmane Tanor i kaay bi daan kenn ci boppam kay jàppale ne Ousmane Tanor Dieng nekk na koo xam ne kii ku yaru lool la te liggéeykat dëgg la libération yi ni kay moom ñëwaat ci wàllu njuuj njaaj jëm ci wàllu koppar moo xam lu jëm ci wàllu MDL mbirum cadastre ministre de la famille Petite Côte bi ay pàkk ca douane bu Bambilor yi ni cabinet njuuj njaaj yi yëpp sentif ci boppam tënkoon na ko ci ab rapport ngir yoon def liggéeyam waaye fi ñu toll nii rapport boobu lay sentif defoon fi ñu toll nii kenn tëggatu ko ay gët ndax dañu ko fàtte ba jël dugal ko ca bayaya daanale ak yi ni kabi ci waxtaan bi mu seq ak Tigre bu Fass moom Gris Bordeaux kay jaar-jaram ci wàllu lamb jeega fi mu teg gëtam ne fi ñu toll ni diggante moo ko Balla Gaye numéro 2 donte ne ñun ñaa ngi wax fi ñu toll ni waaye amul kenn koo xam ne kii mi ngi ciy def ay jéego Tigre bu Fass yëmu ca ne Yékini mooy le meilleur lutteur ci réew bu Sénégal te bu dee wàllu combat dëgg-dëgg rek combat bi ma gën a ñàkk te mu gën maa métti sama carrière mooy sama diggante moo Modou Lo